téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di amaat mbégte bokk yéen plateau bi nga xam ni moo di ganu Equivox fii ci Equivox TV tey nag ñuy dalal koo xamante ni Sénégal yëpp xam nañ ko jotatul ñu koy présenté parce que li mu def ci réew mi ci wàllu politique ci wàllu social ci wàllu aussi itam li nga xam ni moo di mouvement citoyen ñëpp xam nañ ko kooke moo di leader bu mouvement bi di euh, Claire Vision bu ngeen déggee Clair seen xel am na ci lu mu mën a dem moo di Clédor Sène bi nga xam ni tey mooy suñu invité ñu bàyyi ko mu nuyu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan fii ci Equivox TV monsieur Sène ñu ngi lay dalal ci plateau bi. jërëjëf euh, maa ngi lay remercier ci dalal bi ma dalal di nuyu euh, téléspectateurs Equivox TV yëpp. Mm-hmm. Euh, di am mbégte waxtaan ak ñoom euh, ci actualité bi ñu war a ensemble. Mhm. Euh, fas yéene liñ ci indil ay ay tontu yu leer la. Mhm. incha allah macha mhm. allah tontu yu leer yooyu moom la ñu soxla parce que dañu bëgg a jox vraiment de la qualité à nos téléspectateurs li ñu tàmbalee waxtaan bi nag monsieur Sène moo di tey li nga xam ni amal ngeen ko semaine bi taxawal ngeen benn mouvement citoyen boo xam ne dañ ko tuddee le peuple. mouvement boobu lan mooy idéologie bi ak lan moo ko tax a jug ci lan lay yëngu itam. voilà d' abord dafa ëpp mouvement coalition citoyenne la euh, parce que coalition moo gën a yaatu collectif. parce que dañu seetlu boobu ba léegi ay collectif ñooy am ay collectif aar lañu bokk ay collectif ñoo lànk donc moo tax ñu créé coalition nga xam ne day mën a ëmb collectif yooyu yëpp. ci benn cadre unique. Euh, force citoyenne yëpp daje. Euh, moo tax ñu tuddee ko le peuple coalition citoyenne ànd euh, mener ensemble. tous les combats citoyens yi nga xam ne mhm. euh, laaj na taxawaayu askan wi mhm. donc euh, loolu moo tax euh, ñu créer ñu fonder mhm. coalition mouvement citoyen boobu ñu tuddee le peuple pour ku ci nekk am ci wàllam am ci paaram li ko accéléré rek li ko sabab sax mooy jaay doole gi ñu gis mu jëm si suñu suñ ko ñun ñëpp ak ñi gi ñuy salfaañi démocratie Sénégal nga xam ne dañ ko xeex ñu yàgg ba léegi amoon ci ay acquis mm-hmm. ñu bëgg ndërmeel ak yooyu yëpp mm-hmm. di àgg ba ci jàmbat ndaw yi ñu jox leen carte d'identité mm-hmm. wala bu ñu leen ko joxee bu ñu bindee ci gannaaw gi non inscrit sur les listes électorales ñu mën leen a inscrit sur les listes électorales ni ko euh, constitution bi waxee ñu am am calendrier bu leer ñu respecter liberté nit ñi bañ fi indi jaay doole assainir Euh, gestion euh, dëkk bi. mais mm-hmm. euh, bañ a nekk di rajaxe ay këru jàmbur en mm-hmm. plein Covid maanaam gouvernance brutale boobu. Mm-hmm. dafa ëmb lu bëri bëri bëri bëri. mais li ni këtt ñu jon mooy éliminer ay adversaires politiques pour samp. ci koo xam ni mandat am jeex na. mujjantalu mandat am la nekk. kooku lu muy lu yoon ak ku muy xalal ak fu mu jëm. ba ay adversaires politiques di ko gérer au point. que ñu leen di monter le dossier en justice pour fagagal leen comme ni ko defee Karim ak comme ni ko defee Khalifa Sall. Mhm. coalition bi sax ni nga ko waxee euh, moom la ñuy dëggal parce que gis nañ si Dame mhm. gis nañ si Karim Xurum Xax gis nañ si mhm. Assane Diouf. Euh, keroog bi ngeen koy lancé dafa am euh, loo xamante ni ñun xawoon nañu yitteel ñun journalistes yi fa nekkoon. parce que dafa am benn mot bu ngeen utiliser mel ni que da ngeen di annoncer la résistance. ci jamono boo xamante ni réew mi bëri na euh, li fiy xew jamono ji si réew mi ñu ñëpp teg suñu bët euh, wàllum résistance boobu ndax dafa nekk loo xam ne seen ambition la pour taxawal coalition bi ou pas. non coalition bi dafa taxaw ba pare. Mm-hmm. Euh, bokk na ci objectif am. Mm-hmm. taxaw taxawaayu résistance. Mm-hmm. parce que dañu jëm ci noot ñu. Sénégal mu ngi nekk ci dictature boo xam ne buñ ko arrêté wul. Euh, mën nañu mën nañu mën nañu tardé bëri bëri bëri bëri te ñun dëkku liberté la dëkku démocratie la donc sa noonu bu fekkee ne mu ngi fagaru di faggu di jëm ci yow jël état d'urgence téye ci loxoom jël euh, euh, état de siège téye ci loxoom ci assemblée nationale boo xam ne moo ci majoritaire jël ab magistrat def ko ministre de l'intérieur muy bi nga xam ne moo fàggagal say adversaires politiques éliminer leen de la course je vais citer Karim ak euh, Khalifa Sall. ngay euh, poser acte yooyu yëpp. ba noppi di wàññi àq ak yelleefu opposants yi. yow ngay dem élection soppi code électoral bi indi al article L 31. képp ku ñu condamné même benn weer ak sursis mënatoo nekk candidat Sénégal léegi nga jël Ousmane Sonko ko ci yoon boo xam ne. fa la jëm article 31. bu amee même sursis même bu ñu ko nee un mois avec sursis hmm. parce que yaa woote rassemblement kese kese kese kese sans compter dossier hmm. viol boobu yooyu yëpp hmm. loolu rek doy na pour éliminer ko d'une course léegi cinq à dix ans le waaw mais ma ni même bu loolu lu gën sax bu ñu ko condamné woon pour ci lu gën a sax mën na ko teree nekk euh, euh, candidat candidat euh, éligibilité am day nekk en exactement te loolu 2019 lañ ko dugal ci code électoral bi mos cee nekk Euh, donc kooku nga xam ni day gouverner ci coobareem. Mhm. di jël ay loi ci lu ko arrangé di découper euh, circonscription électorale bi ci lu mu ko arrangé di tànn ñi mu war a demal élection parce que faagaagal na Karim faagaagal na Khalifa. Mhm. te loolu doy ko sax pour xelam dal mais dafa indi parrainage segg vingt six candidats à la veille des dépôts de candidature ñoom ñëpp mu éliminé leen tànn ñeent ñu mu war a taseel ba noppi segg ci électeurs yi lépp luy ndaw. primo votant yi. Mhm. ñu téye seen carte ñu ci am carte non inscrit sur les listes électorales ba léegi xale bu dem wuti carte d'identité non inscrit sur les listes électorales alors que dafa waroon automatique. Mhm. parce que fixé nañu âge électoral bi. à 18 ans donc mhm. kooku def loolu yépp nag. bu demee ba opposant yi ci gën a ñi ko ci gën a sonal kii mu jël ko dugal ko ci nguur gi kii mu xeex ko léegi ñun lu ñuy xaar ci ñun la jëm. te dëkk bi. dañu war a am renouvellement des institutions yoo xam ne ci ay élection lañ koy jaare yu leer mm-hmm. kenn xamul kañ la ñuy dem élection locale mm-hmm. kenn xamul kañ la ñuy dem élection législative mm-hmm. kenn xamul président Macky Sall fu mu bëgg a dem ndax dafa bëgg toog moom nee na du wax déet du wax waaw mais acte bi pose yëpp da koy wane mais maire yi seen mandat jeex na loolu moom leer depuis 2019 euh, te ñemewuñu def ay euh, nu mu tudd délégation spéciale te loolu moo yéen woon maanaam parce que Ablaye Wade noonu la defoon délégation spéciale la defoon. donc moom jox na ku nekk terangam <coughs> ba noppi continuer ñun pour ñu bàyyi ko mu continuer di doxal lu muy doxal. donc euh, loolu lañu gis ni ay ay ay dictature la boo xam ne. Mm-hmm. dafay àgg ci moom mu éliminer Ousmane Sonko. Mm-hmm. le mot dictature moom diisul. Euh, non diisul. pourquoi lan ngeen di prouver dictature. parce que souvent on vous entend dire que dictateur la dictature lañ nekk. mais lan mooy la mooy kii bi xam nga dictature mhm. mooy gouvernance bu teguwul ci yoon bu tegu ci coobare kii gouverner parce que ci coobareem la décidé ni ah diplomate yeeg jabaru ambassadeurs yëpp dam leen daggal salaire cinq cent mille loolu fan lañ ko bind fu ñu ko teg ci coobareem la ni léegi euh, mais maire Dakar comme man mënuma gagné maire Dakar léegi maire Dakar maa koy nommé par décret ñu ni loolu duñ ko seetaan duñ ko nangu boobu ñu commencé woon nañu yëkkati suñu baat commencé après mu ne non non ville de Dakar sax ci boppam laay supprimer. Hmm, la suppression des villes ak Thiès loolu loolu loolu ban consensus moo ko lal kan moo ko décidé. Hmm. moom kenn moo ko décidé. jékki-jékki bon euh, Kër Massar dañ koy def département changer circonscription électorale bi. Hmm. kan la ci concerté te pourtant ñu ngi nekk ci période dialogue national mais justement monsieur Sène foofu tamit yaa am problème boo xam te war nañ ko mën a taxaw seetlu ko mhm. mooy euh, l'opposition au Sénégal mm depuis un certain temps vraiment ñu que nii fii am na une opposition farouche mhm. comme ce fut le temps comme dans Ablaye Wade Abdou Diouf fekk na la fii mhm. vraiment on vous a connu dans ces mouvements là après dina si ñëw si kanam mais opposition taxawaayam tey Sénégal ndax nekk na vraiment opposition digne de son non non parce que seen taxawaay vraiment sur le terrain de la contestation et et et, et des et santiruñ euh, ko euh, dialogue bi ñu wootee dara la ci parce que man dama bokk ci kuréel bi ñuy wax front de résistance nationale. Mm -hmm. partie prenante la ñu ci dialogue politique bi. am na ñoo xam ne dialogue politique bi kese la ñu bokk comme Pastef mais bokk ñu dialogue national bi. Mhm. dialogue national bi sax c'est mort. Mm -hmm. mais parti yëpp dañu jàpp ni politique comme contre parrainage def lu nekk génnee suñu doole Macky génnee seen doole te ñun amuñu gain de cause te tegale woon nañ fi ay manifestation ay lu nekk te amuñu hmm. gain de cause su fekkee ni ak yooyu mën nañ ko am autour de la table hmm. nañu négocier donc mu am une majorité qui s'est dégagée ci lool te boo xoolee loolu aussi dafa yenu maanaam hmm. mais ki ñu amal en face moom dafay jouer amul sincérité ñoom aussi ragal nañu ñàkk wuyu ji ñu ni ah yéen kat da ngeen def politique chaise vide biñ leen wooyee négociation waxtaan ñëwu leen xam nga problème yooyu le parti politique yi di am problème positionnement par mhm. rapport à l'opinion publique mais en même temps loolu warul tere quand même boo booree am taxawaay comme ni ko Pastef bi defee nga am taxawaay taxawaayu posture opposant mhm. nga assumer sa sa sa position d'opposant mhm. parce que Ablaye waat différence am mooy bu xeex jotee day xeex bu liggéey jotee mu liggéey y a temps pour tout ki nga xam ne da ko seq da ko seq moom bu fekkee ni jëmalewu la euh, fu am mucc yow da ngay taxaw jàmmarloo bu demee ba comprendre ngeen toog autour d'une table mhm. ngeen def liy yoon mhm. donc loolu moo nekk di def nii parce que président Macky Sall dafa teg yoon sur tous les mhm. plans léegi y parti politique de l'opposition qui s'appelle Pastef et un leader qui s'appelle Ousmane Sonko boo moo ko tere nelaw moom moo fi am posture opposant radical parce que Idriss Seck rallié na moom moo fi gën a taxaw léegi fàggaagal kooku mooy rey opposition en fait loolu mooy nërmeel démocratie comme ni mu ko yéenee woon je vais réduire l'opposition à sa puissante expression loolu du démocratie est-ce que mën nañu imaginer un régime sans opposant mënut a nekk c'est pas possible donc te euh, erreur bi ñu bi ñu bi ñuy éviter def mm-hmm. euh, bi ñuy waaj a def mooy euh, yaakaar ne li sotti ci Karim li sotti ci xalifa Sall mm-hmm. Euh, day yomb ci Sonko. Mm-hmm. erreur boobu la Macky Sall nar def. erreur bu grave boobu la Macky Sall nar a def te erreur de lecture la parce que du benn euh, euh, Karim Wade bi président Macky Sall doon doog accéder au pouvoir. Mm-hmm. amul woon adhésion populaire. Mm-hmm. ñëpp dañu jàppoon ni sax lañ koy ciy tuumaal sax moom moo ko def. ñëpp dañu réclamer woon presque justice pour ñu leeral ay mbiram càmbar ay mbiram. kooku amul woon adhésion populaire. ok Ousmane Sonko am tey. ok yóbbu ko kër yi. ci biir procédure bi la ñu gis ni kii affaire yi dara taxawu ci mu commencé am adhésion populaire nit ñi jàppale ko ba mu am benn benn benn benn charisme Khalifa Sall partem ci boppam moo ko ñaddal Macky Sall waa kër ndem si yàlla Tanor Dieng parce que dafa amoon clivage que dañ ko bëggoon mu rallier mu bañ ñu ñu ñu ko ñu sot ko waa PS ñoo ko ñoo ko ñoo ko njëkk a fexeel pour mu yomb Macky Sall rendi ko kon kooku amul solidarité parti hmm. Pastef c'est trop différent Pastef Pastef c'est trop différent mhm. ma conclure foofu oui parce que parti la boo xam ne ay ay néo mhm. politique ñoo ci nekk et puis il y a beaucoup de jeunes ñoo xam ne musuñoo bëgg dugg ci politique mhm. musuñoo politique boo xoolee yenn yenn njuumte yi ñuy def sax loolu moo ko waral parce que duñu une jeunesse politique comme jeunesse socialiste comme jeunesse PDS comme jeunesse LD ñooñu yàgg nañ ci politique mais ñii ñu yàgg découragé ci politique ba jàppoon seen ñàmbur ñoo am yaakaar ci discours ak attitude benn nit ak parcours am mm-hmm. ni kii kat jar nañu jóg bañ a bàyyee politicien bi mm-hmm. politicien yi suñu avenir nañu jóg jàppale Ousmane Sonko mm-hmm. donc majorité militant Ousmane Sonko ay jeunes lañu effectivement erreur de lecture boobu nag bu ko président Macky defee ba jàpp ni li yomboon ci Khalifa ak Karim noonu lay demee ci Sonko je crois que mu ngi dugal Sénégal ci buntu xam ne ñun dañ ko ci araftu moo tax on parle de résistance pour que nul n'en que annoncer la couleur pendant que les sax affrontement ak confrontation am mhm. parce que caaxaan passé na mhm. parce que ñun on n'est pas en train de s'amuser mhm. parce que li ñuy wax c'est lourd de euh, danger sur le plan pénal et sur le plan de la sécurité sur le plan de l'intégrité sur le plan de la liberté nga jóg woote ouvertement à l'organisation du comité de résistance euh, wax ouvertement ni si président Macky Sall mène son projet jusqu'à son terme on va sonner l'insurrection procureur di la déglu président Macky Sall la déglu loolu je crois que c'est un engagement. Mm-hmm. boo xam ne euh, ah dañuy engagé suñu responsabilité pénale et suñu liberté suñu intégrité suñu yëpp. o mm-hmm. nom de la défense de libertés collectives. Mm-hmm. loolu liberté collective yi moo ëpp valeur ak solo ko sama liberté individuelle man kenn. défendre démocratie moo ëpp solo ak valeur que sama confort man kenn. donc ñun ñi constituer euh, le collectif citoyen le peuple yëpp. figure yi nga fa gis. amul kenn ku ñuy njort ci moom. ni mën na dellu gannaaw ci xeex bi ñu xeex wala mu tayle ko wala mu jaay ko wala ñu koromp ko wala ñu woo ko mu wàññee hmm. xalaatuñ ko ci Assane Diouf xam nañ ko hmm. li mu dej bu yàggu la jógee prison hmm. il a été agressé physiquement léppam dafa yàqu États-Unis dafa perte situation États-Unis parce que dañ ko jiiñ terroriste te loolu yëpp Sénégal a taxoon Karim nitu dëgg Euh, euh, Dame Mbodj Dame Mbodj mhm. ñooñu c'est des citoyens engagés professeur mhm. Cheikh Omar Diagne ko nekk fa woon mais mu ngi ci biir man mii tamit ñu ñun ñun xamante nañu suñu biir mhm. te du ñu yëkkati xeex bu pare di ko tegaat parce que fi bëri na ay kuréel yoo xam ne dañuy yëkkati xeex ba ci digg bi tegaat ko donc ñun dañu bëgg loolu dakk mais justement parce woo ñëpp nag ci même cadre woo ñëpp ci même cadre maanaam coalition citoyenne bi ñu def xeex boo xam ni dynamique unitaire lañ koy àndee. ok pour défendre démocratie. Mhm. Euh, défendre liberté individuelle. Mm -hmm. justement parce que dafa am lu amoon mooy que ni gis nañ euh, yàgg nañ gis ay couleur kuréel yoo xam ni ne dañuy ngir jàmmaarloo ko nguur gi fi nekk wax ko ni ko ñu si nangam ak nangam gis nañ sax bi euh, coow li amee ci fan yi wala li ko jiitu sax yenn mouvement yu bëri sentiratuñ leen woon lu si mel ni yaanaamaa rek ñoom seen ak yeneen ak yeneen mais yéen seen mouvement bi ngeen taxawal tey est-ce que mun ngeen compter sur la part sur la participation citoyenne parce que gis nañ tamit sénégal yi mun nañ tàccu mun nañ encourager mais bu desee lu dul cëpp si terrain bi xëy na du ñu bari foofu ci wàll boobu te da ngeen am adversaire boo xam ne comme ni nga ko waxee président Macky Sall aussi tam il on compte honnêtement sur la participation citoyenne parce que je crois que enjeu yi ñi dañ ko war a lire a appréhender parce que li nekk di nekk nii dañu nekk ci benn tournant historique parce que président dafa bëgg def forcing éliminer toute velléité d'opposition et de liberté Sénégal loolu bu ko réussir waxuma la troisième mandat quatrième mandat ma day toog ba doyal teg fi ku ko neex mu continuer hmm. ñun loolu mooy suñu lecture loolu la war a jóg taxaw xeex ko léegi léegi léegi léegi mu jóge fi askan bi dafa soxla téyewaat baatam ñu delloo ko baatam parce que nguur dañ ko délégué pouvoir askan bi moo dajale baatam ni ko yow la ñu fal hmm. bu askan bi demee ba doylootul nguur googu le contrat social est rompu dès lors légitimité président Macky Sall du ko amati. d'accord donc loolu yoon la pour euh, mm. euh, ñu ñu nanguwaat suñu réew. Mm. teg ko ci ay raay yoo xam ne daf ko teggi te waru ko woon mës a teggi. ok donc ci citoyens yi lañuy la ñuy compter effectivement. Mm-hmm. Mm-hmm. moo tax ñun boo xoolee dañu lancer appel à la jeunesse surtout. ak tous les patriotes. Mm-hmm. tous les républicains yi nga xam ni réew mi ñor na leen. ñu ñëw àndandoo défendre démocratie parce que Sénégal mhm. dëkk bu yomb liggéey la bu neex a jubbanti la mhm. mais benn minorité moo fi nekk di lal ay pexe parce que pexe yooyu bu àggee ba fàggaagal nit ci liberté am wala ci intégrité am wala ci notoriété mhm. loolu day doon ay ay doxalin yu ñaaw ci politique yoo xam ne duñ ko nangu duñ ko seetaan muy sax fi comme règle de gouvernance d'accord euh, balaa ñuy tëj euh, page boobu ma am benn laaj bu mu la laaj rek ndax euh, dañuy yàgg faral di wax foo tuddee Clédor Sène tudd fa maître Abdoulaye Wade la mooy seen relation yéen ñaar. xam nga jamono yi foo tuddee Clédor Sène tudd fa Ousmane Sonko man duma membre Pastef. mosuma mhm. nekk militant benn parti politique. Mhm. encore le PDS. Mhm. yàlla def ci jamono yi quatre vingt huit. depuis quatre vingt a impliqué politiquement. quatre vingt huit moom xam naa ni c' est un tournant décisif si sa dund quoi. Euh, ci ci histoire politique bu Sénégal. au delà de acteur politique bi ma doonoon. Euh, moom rek. moo amoon posture boo xam ni yaakaar nañ ni mën na ci Abdou Diouf dara parce que boobu ñu ngi jóge ci parti unique dem ci multipartisme parti socialiste am doole lool. Mm-hmm. yor xaalis yor moyen. yor ay samba booy comme les marrons du feu tey ñuy tuddee woon ay tonton Macoute. waaw di noot nit ñi ab lay Makhtar Diop moo moonte woon euh, ministre boobu jaay benn Mercedes am ak benn këram monté ministre boobu. jëlee ay nit ci biir Sénégal. Abdoulaye Makhtar Diop tey député Abdoulaye Makhtar Diop mi waaw député waaw waaw milice la fi amee woon. moom moo créé la milice bi ñu tuddee woon ay tonton Macoute ay tenue marron doon sol ak ay kalo euh, xam nga kalo mooy genre beere beere loolu diggante beere ak koppati waaw dafay dafay am forme losange noonu mooy kalo ay kalo maron lañ lañ la ñu amoon euh, euh, loolu moo indi PDS créé aussi ay kalo bleu pour jàmbaarloo ñooñu. donc xam nga tey jii marron du feu xam nga man su ma neexee ma monté sama milice APR am na milice am procureur mu ngi koy xool couvre feu. APR benn bi. mais gisoo biir couvre feu ñu génne ay sambabo booy ay borom doole ñuy jàppale alkaati yi. di ah ce n'est pas l'armée du police. du armée du police ñoo xam ne ñooñu ay ay ay gros bras rek di fay ak affaire yooyu. non non loolu révélation fii fii fii ci euh, base euh, APR ñun xamante nañu aussi. parce que ñun am nañu ay ndaw yu ci nekk yoo xam ne xaalis bi rek moo leen ci moo leen moo moo leen ci soxal mais lu fa xew ñun dañ koy xam donc yooyu pratique moo amoon ci 88 donc 88 pour revenir ci sa question. oui parce que maa ngi doon digressé. oui euh, Ablaye Wade kese moo fi amoon posture opposition bu mënoon am chance renverser Macky Sall. Hmm. mais euh, kii ab Diouf Abdou Diouf mais tey jii Macky Sall kan moo ëpp chance renverser ko ci opposition bi fi nekk Euh, mm-hmm. euh, il est en confinement On, on le tient juridiquement. Mm-hmm. Karim Wade, on le tient juridiquement. Mm-hmm. Qui pour s'opposer valablement au président Macky Sall ci wàllu base ci wàllu appareil de parti ci wàllu représentativité. ak ci wàllu engagement politique c'est Ousmane Sonko. donc ça veut pas dire que moi je suis Pastef. nañ ma daan déggee ci jamono yooyu ci wetu Ablaye Wade. Ablaye Wade noonu lañ may déggee jamono yi. ci wetu Ousmane Sonko. d'accord donc loolu. du du du du variation mais constance la plutôt. Mhm. du côté de l'opposition euh, de l'opposition républicaine. d'accord parce que am na opposition clandestine. Mhm. am na ñoo xam ne ci yeneen dëkk mënoon nañu choisir d'autres formes de lutte yu nekkul ay lutte démocratique ay lutte politique. Mhm. Euh, Pastef c'est un parti légalement constitué dañu am ay structuration au niveau national et international. donc ñu ngi ñu ngi compétir électoralement donc ci cadre boobu. le jeu politique ak démocratie war a wu. plutôt que ci création ay milices wala mm-hmm. instrumentalisation ay justice wala di jéem a détruire vie doomu aadama à des mm-hmm. fins euh, mm-hmm. donc loolu moo tax euh, nañu daan déggee Clédor ak PDS ci ay jamono am na ay militants PDS yu bëri sax yoo xam dañ foog man PDS la ñu bëri Sénégal dañu fa. waaw Sénégal yu bëri pour ñoom yow militant. mais et wax sax ni booy Ablaye Wade la quoi. voilà tout le monde le pense c'est c'est une c'est des croyances populaires croyances populaires la. te jamono ji euh, ñu bëri itam ñu ngi wax ni euh, euh, Pastef la même des militants Pastef s'identifient à moi parce que dañu bokk conception ci combat bi. Mhm. dañu bokk conception ci ay domaines de souveraineté économique. de de de de de projet politique. Mhm. dafa dañu am ay convergence nag d'idées. Mhm. parce que ñun. jóguñu rek pour xeex pour xeex nii dañu am benn yéene ci réew mi boo xam mu mhm. mhm. ñu ko mottali lu dul mhm. li fi nekk jóge fi ñi fi nekk tamit jóge fi en tout cas vous avez intérêt à ce que ngeen boole seen force parce que tamit opposition boo xamante ni ki bu xëyee jaar na lee kële xëy jaar na lee du mujjee sotti foog ngeen def benn bloc xam nga kooku euh, c'est pas euh, une fausse analyse ok mais c'est pas une analyse euh, très politique xam nga politique euh, dafa war a multipolaire dafa war a am trois ou quatre pôles yoo xam ne ñëpp opposition lañu xam nga fu mu nekk nii le front de résistance a sorti un communiqué pour jàppale Sonko. exactement fu mu nekk nii euh, groupe libéral mooy jàppale Sonko. oui ak ñoom Mame Diarra Fam ñooy défendre Sonko. exactement Aïda Mbodj mooy avocat Sonko. avocat oui kenn du ci Pastef c' est l' mais électoralement. Mm-hmm. ku nekk day dem ci chapelle. Mm-hmm. gis nañ tam Déthié Fall dem fa. voilà mm-hmm. voilà voilà nous on est une famille euh, gis-gis politique. bokku ñu sensibilité politique. Mhm. mais on est de l'opposition mhm. léegi les les bu les les Mamadou jàlloo Diallo. les Thierno Alassane Sall les premiers ministres Abdoul mhm. ñoom am nañu convergence boo xam ne. dañu def seen benn pôle. ok xam nga peut-être ñoom Boubacar Camara ak ñeneen dinañ def benn pôle. ex coalition jot na ñu ngi organiser wu aussi en pôle politique. Euh, autour de Pastef y aura aussi un autre pôle politique. ok léegi pôle yooyu yëpp moo gën stratégiquement ñu def benn bloc parce que bu ñu defee benn bloc bu ñu daggee bopp bi rek. ñun dañuy dee. d'accord mais bu fekkee ni bu ñu bu ñu bu ñu benn pôle beneen mhm. pôle jóg. Mhm. régime day am problème. donc kooku stratégie opposition la boo xam ne. Mhm. Euh, euh, public bi duñ ko mën a comprendre mais ñun suñu biir. on se comprend très bien. d'accord euh, rapidement benn question boo xamante ni miin nañ la si moo di la gestion des ressources naturelles au Sénégal notamment le pétrole. dossier Petro-Tim bi fan ngeen si tollu jamono ji ne nga c'est un dossier classé sans suite mais n'empêche xëy na yéen ba tey yéen ngi topp topp fii ci wàllu justice. waaw xam nga euh, ci dossier Petrotim euh, dañu def euh, manipulation parce que dañu def benn procédure bu ñu mësul xam Sénégal muy procédure d'appel à témoin en lieu et place d'une instruction en bonne et due appel à mooy woote seede rek yow loo xam ci léegi kenn tuumaalu kenn kenn accusé wu kenn d'ailleurs sax procédure bi X la visé te ñëpp xam nañu kuy X ci dossier bi. kan mooy X. ah mais c'est Aliou Sall. waaw mais c' est Aliou bu ñu waxee Petro mais c' est le frère du président et le président de la République et Aly Ngouille Ndiaye ñett ñooñu. Aly Ngouille Ndiaye moom lan la ci man maa ngi doog a dégg ñu tudd ko si. waaw ah, parce que da nga suivre dossier bi. si. Euh, Petro Tim. oui benn ñaari bloc pétrolier la yoo xam ne dañ ko joxe ci anam gu jalgati yoon. Mhm. gu jalgati suñu charte code pétrolier te li li li tax ñu ñu def ko. Mhm. dafa am lu ñu tuddee rapport de présentation mooy njëlbeenu xaatim bi layal décret balaa président di jël décret ministre bi ci boppam moo koy tegal élément technique yëpp ñu bu compte tenu de lii ak ak lii ak lii euh, ngi lay demander nga décréter lii lii ko defee président bu ko jotee euh, gannaaw bi mu jaaree ci circuit bi mu war a jaar mhm. premier ministre ministre des finances yooyu premier ministre amatul sax mhm. président daal di koy signé mhm. approuvé ko ne d'accord naa joxe lii pro euh, rapport de présentation bi. Hmm. Aliou Ndiaye daf ñu ci wax lu dul dëgg. ñu ci ah nekk dara du ci dëgg. Petrotim mu ngi judd 2012 mu ni bu am expérience la. Hmm. société bu am expérience la am na li te loolu du woon dëgg. Hmm. parce que ci suñu code pétrolier dañu ni euh, société bu ñëwee di wut licence dafa war a wane ni mën na ko ci xarañ am na kàttan bi tam ci wàllu xaalis donc ci wàllu xarañteef duñ ko mën ci wàllu assise financière xaalis dina ko mën. mais Aliou Nguy dafa ni société bi mën na ñaar yooyu yëpp te mënu ci benn. ñuy uh-huh. financièrement remplir les critères techniques et financiers te loolu rek annulé na contrat bu ñu joxe. kon kooku mooy responsabilité Aliou Nguy ci premier degré am na beneen deuxième degré de responsabilité. mooy bi ñuy jëndante ak jaayante actif yi. Uh-huh. loolu mënul nekk sans autorisation préalable du ministre. Uh-huh. parce que après jëndante nañu jaay nañu soixante Cosmos après jaay cinq. Euh, Euh, euh, nu mu tuddati mhm. BP mhm. après jaayal vingt cinq pour cent euh, BP donc yooyu mënul am te Aly Ngouille Ndiaye ministre alors de l'énergie autorisé wu ko comme mooy deuxième degré d'implication mhm. léegi li ci dugal Macky Sall mooy dafa signé loo xam ni c'est pas régulier inspection générale d'État bi nga xam ne moom ci boppam moo ko saisiroon ni ko lii baaxul te ñaari décret yi rapporté ko effacé ko décret am nga délai deux mois pour rapporter ko te deux mois yi ñu ngi ci woon léegi euh, loolu ñu jëm ko fa ñu da nga war a annuler licence bi teniru ci compte 2013 euh, mu jël yeneen ñaari décret waaw yeneen ñaari décret 1155 ak 1154 euh, ak 1155 yokk délai initial de recherche bi période initiale de recherche bi parce que boobu ñoom amaguñu client donc moom foofu tamit deuxième degré de responsabilité bi ok te ba ba ñuy jaay vingt cinq cent yi BP moom moo yónni woon Mankeur Ndiaye Russie pour mu négocier ak Gazprom mhm. ba actifs yi yëpp ñu war Russie dem weñeeku jaay ko jaay ko BP fekk yéegal nañu actif mhm. kon moom mu ngi ci biir ak Aly Ngouille Ndiaye ak Aliou mhm. Sall mi nga xam ne rakk la ci moom amul benn compétence ci wàllu pétrole euh, mu nekk fa mu mu mu créé benn société bu ñuy wax Petro-Tim Sénégal société uninominale maanaam boo xam ne benn nit moo ci nekk te Aliou Sall la ñu jox ko quatre-vingt-dix pour cent actifs yi nga xam ni moo nekk ci ñaari bloc yooyu te muy président donc loolu moo si dugal Aliou Sall moo créé société acte notarié moo ko prouvé. ñu jox ko 90 pour cent. Macky Sall ñaari décret ñeenti décret yi mu moo ko ci dugal. Aly Ngouille Ndiaye. faux rapport de bi mu def je dis bien faux de présentation. bi moo ko ci dugal. ak euh, autorisation de transaction yi mu def après. ci cession d'actifs donc loolu. ñun la ñu doon séntu ci juge bi mu càmbar ko. mais juge bi moom mu ngi doon topp benn 250000 boo xam ne ñun lijjanti ko ko woon sax. BBC moo ne euh, ci ci layul fayu impôt viré nañu deux cent cinquante mille Agri benn société boo xam ne nijaay ji moo ko moom encore la famille euh, te ñun loolu taxuñu woon a jóg ñun donc xool nañu banque yëpp gis ñu trace virement wu deux cent cinquante mille kon le dossier est non lieu mais ñun loolu tax ñoo jóg. d'accord parce que procédure bi ñun initié wuñ ko procureur moo ko initié te ngeen fàttaliku. bi mu defee mm-hmm. appel à témoin. si maa njëkk a dem dik mm-hmm. ba ma demee dik ñoom dañu dellu gannaaw ni ñoom jotuñu dossier te conférence publique la mhm. la la le procureur def ok ma dem ñu ni dossier am xam nga c'est c'est c'est sérieux mhm. donc ñoom lu ñu bëgg a lijjanti euh, ñu ngi koy lijjanti te ci gannaaw bi ci dossier peut-être toujours Seynabou ñaay Diakhaté président de l'OFNAC mhm. jox xar bi na procureur nee na ko yow li ngay laaj nii dossier OFNAC jox naa la ko ci affaire Petro-Tim te te OFNAC du jox procureur lu dul lu ñu mën a toppee nit yoon kon nekk te moom bi mu ñuy laaj témoignage moom depuis trois ans mu ngi woon ak dossier Petrotim boo xam ne mm-hmm. enquête bi mëtale la mm-hmm. parce que ñoom dem nañu enquête ba bitim réew waa OFNAC nag mm-hmm. euh, def consultation yëpp jébbal ko procureur moom mu ñu topp di ñu laaj ay ay information c'est passé d'accord euh, am na ñaari laaj yoo xam te balaa ñu jeexal bëggoon naa la ko laaj benn bi mooy euh, dañu far ci weewu béy nii ñàkkul ni njiitu réew mi dala bëggoon proposer poste ci gouvernement bii weesu waaw wala déet. no loolu yëguma ko de xam nga nit ñi nag aussi dañuy spéculer rek. Mhm. parce que man dem naa ci benn plateau de télévision ñun ma suñ ma woowoon pour ma bokk ci gouvernement bi ndax dinaa ñëw. ma mhm. joxe sama position. Mhm. mais man je crois que tolluma foofu. wax dëgg yàlla parce que euh, li may xeex. du poste. dégg naa sax nga ne doo nitu Thiès. ça veut dire nitu Thiès. li Idrissa Seck def doo ko def. non c'est-à-dire nit man aussi da ngay may nangul ni. euh, depuis 88. Mmh. Ça fait 33 ans. Oui. Je suis quand même constant. Oui. Hier, c'était Ablaye Wade, aujourd'hui, mhm. man pour ma dem ci nguur est-ce que war na jafe. te man dama leen xam nag wax dëgg yàlla. Mhm. parce que ñoom ñëpp PDS lañu nekkoon. kenn du ci gan ci man. Macky sàll ba ci ba ci ba ci suuf. Macky Sall kër gi ma taxaloo la doon fréquenté. Euh, Gladima Siby euh, ministre euh, actuel ministre hmm. de l'énergie Sophie Gladima Sophie Gladima jëkkëram hmm. ñoo daan ànd di footballandoo yaas kooku moo takk Sophie te bu mu koy takk Macky moo nekkoon témoin bi Macky kër gi ma taxaloo la doon fréquenté comprendre nga hmm. donc ñoom ñëpp dama leen xam ba mu nekkee premier ministre xaritu benn bakkenam nga xam ne tout le temps mu këram kooku sama xarit la donc ñoom ñëpp xam naa leen. man tey jii su ma bëggoon euh, dem ci Macky Sall du ma jaar ci ñaar ñi benn nit laay woo téléphone bi. wala problème mais ñun dañu resté ci ay su fekkoon ni Macky Sall. dafa nekkoon ci intere réew mi maanaam gestion ressource natu naturelle yi nga xam man moo ma gën a ñor. Mm-hmm. bu ko tegoon ci yoon. Mm-hmm. yàlla xam na ni mën naa ko liggéeyal te du lijjanti lu nit di xalaat parce que intere Sénégal boobaa lay jiital. mais dafa nekkul ci tànk yooyu ci tànku pàccoo. ak tey la tubaab yi suñu alal la nekk moo tax hmm. man ma am taxawaay bi di yee nit ñi di leen wan ni hee ñii ñun ñuy rey lii la ñuy def pour nit ñu yeewu bu nit ñu yeewoo ba pare nag hmm. après ci jëf laay woote parce que nit ñi aussi euh, xamuñu li xew hmm. léegi man coono gi may sonn pour xamal nit ñi di xew euh, xam ampleur u désastre bu ñuy subir rek moo ko waral par exemple ñu ngi waaj a euh, bloc de Saint-Louis prétouti mi joxe quatorze quatorze millions et demi de mètres de gaz par jour la war a produire ci biir quatorze millions et demi et demi de mètres cubes de gaz yooyu xam nga lu ñu ci war a am. Mm-hmm. Euh, sept cent millions. Mm-hmm. Euh, sept cent mille. Mm-hmm. te normalement un million cinq cent lañ ci war a am parce que dañu séddoo li ñu am ak Mauritanie. ci quota boobu dafa am lu ñu war a war a sédd directement ci benn projet boo xam ne dañ ko xaatim ba pare tuddee ko power to gaz. qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pris le projet jël ay conseillers a la présidence Arona Dia. Samuel Sarr. ak euh, Ablaye Dia Sénico mhm. ñu jox leen gazu bi war a jóge foofu pour ñu implanter benn benn benn centrale à gaz biir Sénélec ci terrain Sénélec pour jaay jaay Sénélec courant mhm. donc loo xam ne ñoom dañuy jaay Sénélec courant ci suñ gaz de mhm. bu bu ñu war a jox quota ñoom ñu jox leen ko ñu togg ko jaay ko Sénélec am ci seen bénéfice léegi Sénélec aussi ñëw jaay ñu ko am ci bénéfice kon politique baissière boobu taxaw ñu concevoir power to gaz nga xam ne suñu suñu quota bi ñu amoon foofu dañ ci sédd lenn Senelec pour mu euh, defar def euh, defar defar courant à base de gas mm-hmm. et puis soit dit en passant mm-hmm. bépp euh, turbine bu ñu concevoir pour mu fonctionner au diesel mm-hmm. day mën a fonctionner également au gaz du soxla sax ñu ñu changer seen machine yi donc loolu ñu dévoyé ko jox ko ay conseillers tapis à la présidence yu mel noonu laay xeex kon tey jii. Euh, euh, président Macky Sall. Mhm. loolu laa wuteeg moom ci gis-gis ak ci doxalin. ok moo tax man ma am taxawaay boo xam ni taxawaay yu yeete la pour nit ñi xam li ñuy def xam nga li ma lay wax nii. Mhm. nit ñi duñ ko sax lijjanti mais man daf may metti ba du damay daf may feebar. Mhm. donc ak yeneen yu gën a garaaw yooyu ñu ngi koy doxal te nit ñi yëguñu tinuñ. d'accord donc tey jii euh, man je crois que kenn sañu maa proposé benn poste ci gouvernement bi. parce que suñu gis-gis yi dañu waroo vraiment parce que mhm. gouvernement bërëbu liggéey la mhm. du bërëb pour nga am xaalis am oto am kër mhm. man loolu taxumaa jóg parce que ñàkkuma yaakaar ci sama avenir yàlla bu ma nag bu ma bu ma wër narul wërsëgal kër sax am nañu dund ba dee amuñu kër am nañu dund ba dee amuñu oto mais dañu deew ak seen dignité ak seen ngor donc man loolu moo ma gënal lu nekk